ku la dóor 3-0 moo moo moo la man moom et puis ci football bi boo xoolee vraiment anglais yi ils ont été beaucoup plus réalistes l'expérience également feeñ na fa. mu mel ni euh, boo defee jàngat bi aussi xëy na Sénégal xawoon nañoo naagu trop xam nga am na équipe yoo xam ne booy football ak ñoom aussi. je pense que war nga leen a jox cër déjà parce que boo xoolee même l'opinion sénégalais yi liñ doon yaakaar mooy dañu ñëw rek jaar ci ko anglais yi jàll sachant que duñ duñ équipe bu ndaw équipe bu ndaw boo xamante ni quand même da ngay ñëw rek mën leen a gagner parce que fi ñu jaar tax quoi am nañ jaar jaar am nañ équipe mag am championnat yu mag c'est vrai que les Lions n'ont pas démérité aussi bu mm. loolu bu buñ ko wax parce que am na ci ay absence yoo xamante tamit euh, gis nañ ni feeñ na fii par exemple ñu am expérience ñu fi nekkoon Kouyaté depuis deux matchs il joue pas yàggaan nañu aussi fi nga xamante ni quand même moom mooy ci milieu terrain bi. Mm. loolu aussi gis nañ ni feeñ na fa beneen bi tamit mooy am na ci zone yoo xamante ni bon des nañ ci loolu moom c'était le choix du coach yu mel ni bu amee comme ni mu ko waxee après c'est lui qui assume les responsabilités parce que quand on prend un gars comme Crépin Diatta constaté nañ quand même mondial bi c'est pas son en match ko jox rek on lui a donné plusieurs fois. l'occasion et la chance quand même de prouver mhm. mais gis na ni te boo xoolee sax les anglais côté bi mu nekkoon c'est bi yëpp ak contre fa la doon jógee surtout en première période muy loo xamante ne quand même nemmeeku nañ ko parti yëpp daal gis na ni en tout cas ay problème posé woon nañ fa ngir ñu mën a génn ci match bi relever ko jàll fi nga xamante ne mooy premier tour des nag mooy ñu waajalaat ko bon

les résultats aussi ñu wane fa loo xamante ni dina mën a tax ëllëg aussi ñu mën a dem di concurrencer les grands d'Europe surtout ak Amérique du Sud sinon coupe bi ñëw ci ñooñu nag lay lay nekk en tout cas ñoo koy paasante ñoom ñaari continent yooyu. Mm-hmm. Euh, Marcel ndax défaite bi euh, naqari na gën naa naqari euh, bu fekkente ni gaynde yi joxe nañu li ñu amoon. waaw euh, naturellement noonu lay gënee noonu lay gënee métti mais bon ñu wax ne que sur l'ensemble du match quand même joxe nañ lépp lu ñu amoon euh, c'est vrai que sur le début du match c'est c'est c'est dommage ndaxte mm-hmm. euh, benn instant on a eu les les occasions les plus franches bala Angleterre di di yeewu je pense que am na yoo xamante ne ça ça se paye cash dans ce genre de de compétition dans ce genre de match Euh, je pense que waroon nañ euh, les deux occasions yi ñu jot am balaa bu anglais bi waroon nañ jéem a concrétiser pour au moins euh, installer doute bi ci seen ci seen xel yi mais voilà donc euh, comme comme ni ma ko waxee c'est euh, c'est dommage et dafa mel ni rek après le maa ngi gis ñu naan deuxième bi bi moo leen plombé mais dafa mel ni premier bi bi bañ ko encaissé rek dafa mel ni après spirale bi yëpp moom moo moo mujju moom moo mujju damm moral bi yëpp. Mhm. Euh, a encaissé après le deuxième. Il fallait pas encaisser un deuxième, je pense, hein, avant, avant la mi-temps. Waroon nañ dem avec un but pour espérer waat. Euh, euh, espérer remonter dafa mel ni anglais yi daal euh, c'était une stratégie de leur part xamoon nañ ne ne peut-être ñun a xër la ñuy ñëwee au début du match. Mm-hmm. Ils nous ont laissé dérouler tout en faisant confiance à leur expérience. et puis euh, profité waale la moindre la moindre occasion contre yi ñu am woon nañ ñu ne qu'ils avaient qu'ils avaient plus de réalisme ci wàllu ci wàllu yu mel nii donc euh, comme ni ma ko waxee rek ni la ñuy nattee équipe yu yu mag yi ci ci ci genre compétition yu mel ni c'est vrai que score bi euh, c'est euh, c'est quand même c'est c'est lourd 3-0 absolument <coughs> mais bon je pense qu'il y a pas à parce que bu ñu xoolee histoire wu euh, compétition yu bëri ay équipe yu mag yoo xamante ne dañuy si ci ay étapes dafa am ay ay ay ay plan de jeu yoo xamante ne boo koy développer nii rek la mën a demee mm. on a vu le Brésil battu par la France 3-0 en finale. On a vu ce même Brésil euh, qui a été éliminé dans sa propre Coupe du Monde en demi-finale par l'Allemagne, 7 buts à 1 quand même. Euh, gis tamit en le Brésil battre l'Italie en finale. Euh, donc voilà on n'a pas rougir de cela comme ni ma ko yàgg coupe du monde tamit ce n'est pas la coupe du coin. ce n'est pas la coupe du mm-hmm. quartier. donc dañoo teel peut-être naagu yaakaar ne

ci li nga xamante ne moom mooy compétition yi ñu am à notre niveau comme ni ko Sadio Mané waxee il y a plein d'autres trophées à aller mm. euh, je pense que ci lool la ñu war a njëkk jaar balaa ñoo ñoo rêver euh, automatiquement d'une victoire en coupe du monde des ci logique boobu noonu Mortala Gaye noo gisee euh, démb gaynde yi ak ni ñu joué ci biir terrain bi ak défaite bi ñu am waaw man jàpp naa ni ñàkk nañu mais bu ñu ñànki Euh, en plus euh, man bokkuma ci sénégalais yi nga xam ni. Mhm. dañ doon célébrer victoire yi tey ñu ñëw ñu perdre rek ñu commencé maanaam di couvrir d'épines mel ni di xalab di xalab joueurs yi ainsi de suite pour man toll ñu foofu mhm. man pour man euh, ñun ñëpp dañu war a delloo si waat suñu xel xam ni suñu équipe dafa am ay lacunes te loolu ñu ngi ko doon wax ba ñuy gagné je pense il faut ñu démarrer que ni équipe bi amoon na lu des. maintenant bu ñuy gagné kenn du ko gis. parce que euh, seule la victoire belle comme on dit maintenant nag am na ñu qu'on en tire les le mm mm-hmm. mais pour man euh, ñu dóor ñu coupe 3-0 euh, mm-hmm. euh, pour man score bi c'est pas un score lourd parce que euh, il faut ñu wax ni huitième de final yi match couperé la da ngay joxe li nga am yépp moo tax boo seetee Aliou Cissé ba mu ba ñu mi dafa dugal trois trois joueurs ça lui arrivé c'est c'était la première fois muy oser di def loolu parce que tout simplement coupe la buñ la dóoree dangay ngay ñibbi li nga am yépp tu jettes ça dans la bataille moo tax pour man nañu delloo si waat xel yi eh, jéem a liggéeyaat jéem a tirer les leçons de ça parce que quand même euh, je trouve que quand même am na ay lacune ci équipe bi nañ koy jéem di euh, gommer mm-hmm. di ko di jubbanti et puis après mën nañ espérer mm-hmm. déjà ay échéance mi ngi ñëw ci déjà CAN bi qualification CAN bi il faut pas rester les bras croisés la logique a été respectée bu ne logique a été respectée boo seetee classement FIFA bi Angleterre mooy cinquième au niveau mondial mm-hmm. Sénégal mooy dix-huitième Euh, boo seetee également ci huitième de finale yi fi jot a jaar yépp France France mooy euh, quatrième sur le plan mondial euh, Pologne vingt sixième France trois un la ko dóor Angleterre wax nañ ko Argentine troisième au niveau mondial Australie trente huitième gis nañ différence bi Pays-Bas huitième mhm. États-Unis seizième mhm. donc pour man ci huitième de finale yi jusque là la logique a été respectée maintenant nag euh, on n'a pas à avoir honte, de man sax duma tàmm di sol maillot yéen sax seetlu ngeen ko mais c'est la première fois c'est la première fois ma sol maillot parce que pour man moment bii la ñu gën a jàppale Lions yi moment bii lan leen war a gën a soutenir ñu mhm. euh, tirer les leçons de ça am na yeneen boy yi nga xam ni il ils aspirent à intégrer l'équipe nationale nan leen ci yaatal mais am na ñoo xam ni également am na ñoo xam ni également il faut qu'on leur page mhm. parce que mënuñu espérer ñu apporter ñu plus que li ñu apporter ci coupe du monde bi loolu aussi je pense euh, na ci ñëpp bàyyi xel mhm. avance. c'est ça merci beaucoup Mokhtar Alaaji Malick hmm. pour terminer waaw gàttal rek ah parce que déjà gars yi wax nañu wax nañu lépp li li am solo mooy euh, ñu ñu ñu ñu encourager suñu lion yi il faut qu'on soit fier de cette équipe là. Hmm. ndax wax dëgg yàlla lu ñu mën def nañu ko amaana. Euh, dañu tombe ci équipe bu nga xam ne moom moo ñu gën a pare moom moo ñu gën moom moo ñu supérieur moo ñu mën moo ñu dóor hmm. li tax mu supérieur ñu aussi il faut ñu xool équipe bu Angleterre bi yan joueur ñoo ci nekk c'est des joueurs yu nga xam ne ñu ci ba la près tous ils sont titulaires dans leur club temps de jeu bi ñu am suñu ay joueurs amuñu ko ñun am nañu ay joueurs yu nga xam ne ils sont à la recherche de temps de jeu pendant la compétition mm-hmm. alors que ñële dañoo paree yàgg na donc du du du du du du du du gàcce Angleterre gagné ñu mm-hmm. parce que Angleterre dans ce match-là ils nous étaient supérieurs c'est vrai les Lions ont joué en deçà de leur valeur li li leen xamee dëgg-dëgg defuñu ko peut-être qu'ils ont qu'ils étaient un peu tétanisés ils ne sont sont ci match bi alors gagné nañ ñu. Mhm. maintenant li ci des naata mooy li ñu war a éviter. il ne faut pas qu'on équipe-là. Mm. on a une belle équipe qui nous a. nga xam ne waaw bu ñu leen mm. démoraliser. parce que li ci am solo mooy jox nañu mbégte mu nga xam ne bu ñu ko fàtte. gis naa kenn kuy bind démb gis naa kenn ku dugal démb euh, biwu Sadio Mané bi naan xanaa da a fàtte mbégte bi. waaw mbégte bi wax dëgg yàlla on il faut pas qu'on soit amnésique coupe du monde beneen niveau la gagné nañu dem nañu représenté nañu dignement le Sénégal et le continent. Mm. on les encourage dellu seen club liggéey ñun tamit ñu tirer tous les mm-hmm. mm-hmm. li ci des dañ ko waxtaane suñu biir. Mm-hmm. avec beaucoup de lucidité. parce qu'il y a des manquements aussi bien dans le coaching que dans le li ci des nag dinañ ci wax bu wax bu wax. jotee mais heure bi nañu leen encourager te continuer liggéey bi. merci beaucoup Alaaji Malick dañuy jàll. waaw sëriñ lañ xaw ma ci internet bi bu Sénégal di football ci télé ngay ñooñu aussi ñoo wax ci ñoom. ñoom mën nañ ñoo baal rek man ko mën nañ ah, ñoo baal dama gis saa yu Sénégal di football vraiment da nga ñu ngi ci internet bi ñu ngi kii di wax. Ah. loolu aussi bokkul ci. man man sëriñ c'est un problème ah, man c'est mm. pas problème avec ñooñu man ñi leen di. seetaan la problème parce que nit ñi également il faut ñu xam ni football foo la. sëriñ si nekk ci euh, YouTube beeg ainsi de suite di wax ay résultats te après ñu leen di traité de fenkat ñooñu dafa mel ni sax am ñu njaboot. quelque part pour man euh, ñi leen di seetaan ñoo ko def je pense il faut ñu gëm ni. football fo la. Euh, ay nation ñooy football am na ay enjeu. mais après ça reste du jeu. du jeu waaw mais buñ ko bëggee yóbbu ay buñ ko fu mu eggul voilà merci beaucoup Mortala ñu fi lañ fekk nañuy ñaan mais lépp dans la discrétion jarul di affiché wu ci ay réseaux sociaux. ñu jàll ci un jour au Sénégal